salaamaaleykum ami téléspectateurs de la Sen TV ñu ngi leen di nuyu euh, bu baax ni ñu koy defee comme chaque soir ci euh, grand plateau grand plateau di leen gunge ci euh, weeru koor gi fu ngeen mënti nekk yéen itam ci télévision bu mag bi di Sen TV tey dimanche équipe bu Safia la ñuy àndal mu di gis-gis émission boo xamee ni Sénégal ak li ko wër mbaa àdduna ah, ba ca fu ci waay mënti nekk dañuy xaar bii émission mu di gis-gis àndandoo ci ak tamit gannaaw équipe bu Safia dinañu àndandoo ak nabiyan yi Oustaz Mouhamed Mbaye ak ay ganam Safia Diatta madame Diallo maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax madame Mbaye j'espère que yaa ngi si jàmm kontaan nañu bu baax a baax ci jàkkaarloo ak yow ci émission bii di gis-gis di profité di la naan déwéné ci di la baalo àq bu baax a baax njoon séeréer séeréer bu nice kontaan nañu bu baax a baax. ayca euh, bonsoir à tout le monde j'espère ngi ci jàmm fa ngeen nekk euh, ñu ñëwaat équipe bu gis-gis daal di teewaat juste pour vous faire plaisir yéen nga xam ne da ngeen taamu chaîne bii di Sen TV gis-gis 100 pour cent ñu ñëw toog fii ànd ak nabiyen yi mënut a ñàkk ànd ki nga xam ne mooy Père Mbaye Ngoné Fall muy xoromu gis-gis papa nuyu nañ la ziar nañ la bu baax a baax mbaa yaa ngi ci jàmm Fall. waaw waaw waaw ñaar maa ngi maa ngi nii maa ngi nii ci jàmm lool njoon njoon naa ko waaw ñel namm naa njoon trop <laughs> daaw ba léegi <laughs> daaw mais comme sunu boroom def na nu gisewaat loolu ak cant la dëgg la di nuyu ñëpp nag ñu nekk ci plateau bi tout di xam ne waa tuubaa doon maa ba xaw ma sax nan laay mujj def <laughs> te kat leen dong nan may wooye mhm. nee nanu mu amen bay loolu nga xam ne su baaxee ci doomu aadama léppam baax na waaye su bonee ci doomu aadama léppam bon na nee na moom moom la le muy ab xol. ñoom ñoo ko wax de waa Touba <laughs> ndax ni mu def ak Assa Samb te su indee seen Babacar ndax xam nga nag doon ay mbokk ñoo bokk maam Maaram. waaw moom seen Touba ak maam Seydi Aj Malick si ñoo bokk maam Maaram. Mhm. waaw waaw. loolaax ci kii di nga ci fidélité ma leen di gërëm di leen sant bu baax di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp di gërëm sang ma sang ba Cheikh Mouhamadul Habib Mbacke ibnu Sëñ Abdoulahi borom dër bi rakk Serigne Cheikh Mbacke le lion de Daaru Rahman Serigne Abdou Kandji ba di ñaan sunu borom yàlla na ko yàlla sédde ca àjjana ya gën a kawe ci barke Sëñ Touba sëñ moodu maa ngi lay nuyu soxna maam Fati soxna maam Bousso Tamba fàttewuma kenn kenn yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm di sama xarit sama jigéen sama mbokk sama lépp. ndax xam nga avant l'émission maag moom ñooy nekk ci sama oto am nga ci lu la wér muy maman Aïcha après l'émission man ak moom ñooy ànd loolu c'est sûr waaw muy maman Aïcha dem na nag ba ca ëttub sama maam yëlli manel ba toog ak jigéen joo xam ne doom la ci man ndaxte nee na ma manel bu tonton Omar Bayo Fall mooy baayam. mu ne Manel Fall bu tonton Omar Bayo Fall kooku ak As Bayo Fall As Bayo c'est le gendarme moo nekkoon principal jóge fa dem Dakar Nave. ñooñu Fat Diouf moom mooy seen yaay Impaañ Fat Diouf Mayekoor mi wéer junjung ji c'est-à-dire le dernier Bour moom mooy woy juróom. ñu baax ay bete bete. waaye nee na ma bokkuloo ci Manel Koddu Ngay nee na Manel Koddu Ngay du sama maam. d'accord <laughs> ma reeta xam ne maam Dumbe du ma wax loolu. soxna Rokhaya du ma wax loolu Khady Fall Parma du ma wax loolu Aji Ngone la grande dame de Bambey du ma wax loolu Ndey Jéey du ma wax loolu amul kenn ku ku may wax loolu moom nag moom wax loolu. d'accord waaw Astou Fall mu sama nijaay Omar Bayo. Mhm. duma ko wax mukk mooy lébu bi moom la ndeyam santu Ndoy mhm. mu dëkk fii diggante Yoof. Moluqikaay. soo jógee Yoof. Mhm. Wakaam ñoom ñoo dëkkee foofu. d'accord kooku du ma mës a wax loolu ci këru <laughs> àdduna. waa kenn ki nag sama maam nañ ko tuddee. Ah, waaw ba sama yaay muy Cheikh Ngone Maye waaw Cheikh Ngone Maye ñun ñëpp yow la moom ah, ba Koddu Fall ba way juram waaw ba Koddu Fall way juram Thiassine Lat Seen moom moo ko jur. Hmm. jur Cheikh bu naa ma waaw. dëgg la ñooñu ma wax loolu. moom nag na wax loolu mais duma ko tontu te mën naa ko tontu am lu ma ko tontu lool waaye duma ko tontu waaw <laughs> nee na mooy papaam Manel bu tonton Amar Bayo Fall. Gan Siri maa ngi lay nuyu bu baax depuis Thiadiaye. léegi loolu wax ma Aïcha. Ah, non non kii ne ko rek waaw dama ko doon nuyu. dama ko doon nuyu. Aïcha kontaan nañu dama ko doon nuyu ah maman Aïcha ñu ngi lay jëndloo fasu yaa biir. Aïcha maman Aïcha ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar Benoît bonsoir. bonsoir Safia ça va mbaa yaa ngi ci jàmm. ça sant yàlla baax. Euh, di nuyu ñu ma bokkal plateau yëpp di nuyu Sénégal yëpp. et euh, di ñaan yàlla ñu nekk si hôpitaux yi yal na leen yàlla yëkkati. amiin euh, di ñaan Sénégal yal na fi yàlla jàmm di def jàmm comme ni mu ko fi defee chaque fois. et puis di nuyu sama ami Tamsir Soxna di koy nuyu mook famille am di leen ne jaajëf parce que hier ñoo ma invité woon maak père mm-hmm. mais dama leen ne maak père ñu bokk benn ndogu quoi. nañu bàyyi ñu jëlal ko bés demal sama bopp. Ah. donc may nuyu. non la a dëkk Sokone di ñëpp Sokone la dëkk social nekk diggante Sicap li muy def Sicap amul kenn koo xam ne dina ko def Sicap. <laughs> billahi wallahi bunti. non daf ñu bëggoon boole pour maa ak yow ndogu ma ne ko man na la jëlal bés rek bàyyi ma dem ci kër ga non non xajunu ci kër ga. xajunu ci kër ga. ayca kontaan nañu bu baax a baax benn Benoît bonsoir Mohamed ça va. bonsoir à toi chère ngi nuyu di am mbégte bokkaat ak yow plateau mm-hmm. gis-gis di nuyu ñi ci plateau bi yëpp dañu lim maa ngi tey nag bawal laa bawal laa jëm nuyu bawal bawal yëpp ah, diggante Toubatul euh, diggante Refan diggante Newran réew Maawo réew Maawo tundut bawal gi yëpp maa ngi leen di ah. nuyu di nuyu it fi ma jógee Bambilor mm-hmm. duñ ko mës a fàtte ak Parcelles Assainies bi en tout cas ñu ñuy seetaan du sunu ay wëlle rek mbokk am di jàmm ñëpp nuyu nuyu nañu leen di leen wax ñu daal jàmm ci gis-gis Diop Sophie bonsoir. bonsoir. ça va. ça va merci beaucoup. tey baas nga laal de tey baas. waa gis nga dafa am loo xam ne papa ah. laay tuddee sañse bu ma sañse rek Fall la sant. papa laa ko tuddee waaw. sañse bu ma sañse rek Fall la sant ah, papa laa ko tuddee. Fall la sant. jërëjëf kii na dégg gaa ma kii nee naa ko ah. nga dellu ci tradition bi waaw man mooy mooy noppal ndax ci ngay gën a gaaw a jare ci ngay gën a gaaw a jare il ko encore wallaay kii bàyyi bëgg mu jar bi may yëy waaw ci loxom lay jaar barke borom Tuubaa xam naa loolu lu ko neex la wax bëgg gaaw jar lu ko neex la wax dëgg la fa ba pare naawtal ndeysaan moom la jaboot gu nekk di ñaan dëgg la fa dëgg la faa lu ma jur rek na dem. dëgg la jigéen ñi dem leen. donc maa ngi leen di nuyu yéen ñi ma bokkal plateau bi di nuyu waa Kaolack bi ma jugee jeudi. particulièrement quartier Ngane Sayar di nuyu Casamance bi ma jógee tey ci suba ak parcelle unité 7 bi nga xam ne fa lañ doon distribuer ndogu di fàttali nit ñi rek ni euh, dund bi amul biir ndakaaru nañu décentraliser action yi nga xam ne ñi ngi koy def euh, di dimbali ñi nga xam ne yellool nañ ko ci weeru koor bi bonsoir à tout le monde. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi Sophie di la nuyu baax di nuyu suñu gan yi tedd yi macha allah nga xam ne li doon def sànq neex na lool macha allah ànd ak Mouhamed di nuyu sama papa Sophia tey nag damay dem ba jam ñaajo rek ma nuyu papa xam nga temps yi moom li may sol yëpp. moo moo koy ñëw. vraiment te ñëw yi rafet na cher na mais du ma dara. day ñëw rek daal di may jox ne ma solal. kon tey émission bi yëpp lu ñu fi wax rek may naa ko papa Mbaye fële ca jam ñaajo kontaan nañu yaa Seyda Absa mm-hmm. bonsoir Prosper Dieye. bonsoir madame Diallo. ça va. xanaa di ñaan rek nga may ma ma ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mm-hmm. dañ may tàggee léegi bi may ñëw sama benn euh, papa suma xarit sama sëriñ sama goro nest ñu koy wax euh, El Hadji Serigne Samsidine Kane dëkk Daara Salaam Frère Louis Blanchot. yàlla def sànq ci ngoon rek mu am euh, jàngoro bu ko xaw a sonal tuuti rek ndey laa ko wuy ji boromam donc di ñaan yàlla mu xare ko àjjana ndax am nañu yaakaar nag ci moom ndax daara ji nga xam ne ba mu juddoo ba léegi alxuraan lay jàngale n'est-ce pas am nañ yaakaar ci moom te ya gëm naa ne du hasard mu dem wuy ji boromam weeru koor loolu moom lu ma gëm la donc inter euh, levée de corps demee say euh, zawiya say Seydi Hadji Malick fële ca Lamine avenue Lamine Gueye enterrement 15 heures à Yoff incha allahu rabbi waaw di wax alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf kontaan nañu bu baax a baax a baax merci beaucoup Maya bonsoir ça ci plateau bi yëpp donc di profiter également ci plateau bi pour baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq donc di profiter également ci occasion bi pour souhaiter un joyeux anniversaire sama maam depuis Louga mère Khady Gueye donc di ko ñaanal yàlla mu yàlla bàyyi ko fi suñu kanam ba si kanam a kanam donc voilà di kontaan di fi teew. merci beaucoup delloo la kàddu gi laataa ñuy démarrer. voilà xam naa ni Père Mbaye Ngoné moom yàkkamti naa maye Sophie <laughs> ñu ma koy laaj bari mais gisuma ku ma doy. papa papa tànnal ko rek. gisuma ku ma doy de. waaw gisuma ko il faut mu may la ku ko doy. waaw mu ngi noonu Safia noonu la wax ay satim Oustaz Mouhamed mbay Jamil moom nag euh, mooy dalal nabiyen yi bés bu ne ñu ngi lay ziar bu baax a baax Oustaz euh, lii la jàngkat yo mbay ma caaga Fatim Ngoone ma ca taar ba. oh am. <laughs> lu gaañu jàng tey yaa koy firi. <laughs> génn ci aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim walhamdulilahi allazi bi nicmatihi wa jalalihi tatimu salihat wa bi fadlihi tataxaqaqu maqasid algayaati wa bi tawfiqihi tatanazzalu alxayratu walbarakatu alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum alislaama diinan xam nga kuy nuyoo noonu Serigne Mansour Sy Djamil tant boo dugg noonu lay nuyooyu moo tax tey ma daal di ko bégalee ñi nga xamante ni euh, njabootam lanu euh, tey ñu ngi dalal nag alxaaji Njaga Njaay euh, bàyyi kii ñu dalal mm-hmm. fu sëñ Mansour si jëm ci àdduna bi ñoom ñaari ànd Italie ñoom ñaari ànd Allemagne ñoom ñaari ànd Angleterre ñoom ñaari ànd France ñoom ñaari ànd sous raison la ñuy wax mm-hmm. fu sëriñ bi jëm ñoom ñaari ànd mm-hmm. tey nag moom la ñu dalal waa kër sëriñ Moustapha Sy Djamil yëpp jóg dama bëgg tey nga dégg way dëggantaan tey euh, émission bi dama koy may Sofia. Sofia Diatta Diatta tey moom laa may émission bi. waaw may ko Alima Ndione. may ko. Prosper Prosper. may ko Benoît mais may ma ko ay Mouhamed ah, ah may naa ko Sophie bu ndaw. Mouhamed dañ koy dàq sax nag. boo xoo ci. non Mouhamed bi doy na ci maye. mayu ma ko ay mayu ma ko ay Mouhamed yi kii yow dama laa laaf ci biir. kenn mayu la kaay toog ni yow laa may. ko limuñu la limuñu ko. may ko yaa Seyda di remercier nag Bougane tey dafa ñëwoon ba sama koñ. déedéet wax dëgg yàlla sagal ñu lool. suturaal ñu lool. non man dogu fekkuma fa sax ndax dañoo daa bi mu ñëwee ba toog tuuti laa ko waxtaanal daal di ko dee ni ko maa ngi nii jëm yéen sama benn xarit ku ne dégg na may tudd turam bés bu ne ah. Ablaye Ndiaye bu yéen Ablaye tey da doon takk soxna dama faa jógee rek daal di continuer yéen daanaka meeg si ndogu jot na alxamis fan laa ko dégg yëmbal route de Boune moom daal moom daal tabarkalla yëmbal route de Boune ah waaw waaw dégg naa ko fa de waaw mu ngi woon terrain bi bi mais tey ah li gën a jafe lay def de alima. tey nag saafonte. tey nag tey nag dem na ci. tey nag moo gën a jafe. waaw li gën a jafe gën a miti waaye ëpp njariñ moom lay def. ngay riisonte. dem na Petersen dem ah. que xam nga foofu lan la fa olof wax. Ah? nee na jaaykatub diw day niin. dëgg la mu ne jaaykatub diw. day niin nee na koo taqool ku nekk mu taqal la gis nga nii mu taqoo abule yi gune yi dinañ ko taqal ndax nee na soo weddee ne koo taqool mu takkal la nga sol tay baa su jaaykatu riisu tiir te lu yàgg sax day niin dëgg la soo di solee xaftaanu perkal riisu jaaykatub tiir faaw nga takk koo takkal mu takkal la te moom laa takkoo gune yi tey tey tey tey loolu moo taxoon ma ni naa indi njaga Ndiaye Jamil waaye tey dama koy may tiis mhm. iPhone nekk ba Pikine nga xam ne daa jël téléphone bu rafet tiis ma nga ba Pikine mhm. di taalibe Serigne Babacar Sy ni ma may naa la téléphone bu cher addi Serigne boo fi jaaree jël ko tey moom laa may loo doxal ñu doxal ko ayca bismillah la Sénégal gépp di déglu yow la di déglu fii sa Serigne toog fii ci Fass yow lay déglu ak ku sopp Serigne Moussa Fass Jamil ayca ñu dem